règlement intérieur bu assemblée nationale ngir ki nga xam se ni moo di Ousmane Sonko mën a ñëw def DPG bi politique de politique générale ca na mu waree euh, la xam ne nag moo di ñoom ñett euh, ñu nga waxtaan ba tënk nañu xam ne itam moo di ki xam se ni moo di njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ci ay jéego ngir ñu mën a waxtaan ba jàmm dellu si ngir lépp mën a am waaye nag ba ca topp itam dañ ko cay bana rek ñu bana ñu xaabal lépp Euh, Benno Bokk Yaakaar seen xel nekk ci dugal proposition de loi ngir lan ngir président bañ am sañ-sañ ngir man a tas assemblée lan lañ ci jublu ca dëgg-dëgg ndax ñoom jamono dañoo xam dañoo am doole te doole ji ñu yor mën nañ koo ñàkk balaa yàgg moo tax ñu bëgg a profité ci mbir yi. Ablaye man yooyu yëpp du coow li ci man xam nga luy coow li. Hmm. je vois dans le quotidien L'As on nous dit c'est le président Macky Sall qui a appelé de son camp. Hmm. pour mën a indi jàmm ci hmm. mbir moom. Euh, je pense Omar Sarr moo ko fi wax démb xaw ma bërki démb gis nga le président Macky Sall après douze ans au pouvoir waroon génn réew mi dafa waroon toog ci réew mi ñu lijjanti lu bari ba pare assemblée nationale bii nii il faut que ñu dissoudre ko wala ñu tas ko parce que gis nga nouveau type de sénégalais lañ doon wax ci ay jamono hmm. mais une nouvelle forme de politique bi faral di wax léegi nii je pense que il est temps ñu dugal une une nouvelle forme de politique parce que je ne peux pas du peuple ci li ñu wax da ngay déglu président Macky Sall. Mhm. wala président diw wala président diw pour pouvoir faire ou agir selon les intérêts du peuple. Mhm. moi ça me pose problème. bañ lay fal askan wi la fal. Mhm. ñu la ndax parti politique. da nga ñëw ñu ne Omar Sarr moo gën a siiw ci koñ bi mais mu ngi defal waa koñ bi. te xam nañu ni bu nekkee ci pencum ndawi réew mi na mu doon defal koñ bi dina ko gën a yokk ndax dina am benn moyen wala dina am ay den maanaam kàddoom li la gën a. gën sori. ñu ne Ablaye Mbow gox bi mu nekk nii yëpp gis nañu jéego yu muy def. ngay dem élection ñu ne dañ lay voter y a non inscrits à l'Assemblée nationale. Hmm. bokkul parti politique. mais dañ ne buy dugg Assemblée nationale da ngay dindi sa mbubu euh, diw wala diw. Hmm. pour nekk un député du peuple. Hmm. mais aujourd'hui tu attends que le président Macky Sall ou l'ancien président Macky Sall woo la pour ne la situation boobu noonu noonu bàyyi leen ko teg leen ko suuf te nga ni député nga wala ngay xaar président de la République di woo. naataangoom walla nu ñu ko mën a wooyee mm-hmm. euh, euh, ci wàllu protocole. Mm-hmm. kii di deuxième personnalité de l' état. Mm-hmm. man déjà Amadou Mame Diop man j'ai un gros problème pour moom. j'ai un gros ci moom mooy le président de l' tour la ci am amu ci leneen. c' est juste un nom wala benn fonction bu ñu ko jox mais amu ci absolument rien du tout aujourd'hui coow li waroon na bañ a àgg ci ay Macky Sall wala ay Bassirou Diomaye Faye. c' est quand même la deuxième personnalité de l' président assemblée nationale mënoo lijjanti assemblée nationale député yi bureau mais déjà première erreur bu ñu def te euh, Doudou Wade wax na ko euh, ku mel ni Moustapha Cissé Lo manqué ziar ah, au passage mm. faute technique weesuwul nga ñëw ñu ne débat d'orientation budgétaire nga xamee ne c'est consacré par les textes ba ci moi nga ñëw ne du am parce que lan am na benn député bu tontu benn benn ministre bu tontu benn benn député wala premier ministre moo tontu benn député c'est-à-dire que enfantillage bi mu doon wax. am ñu koy bañ. Mhm. c'est des enf yëfu enfantillage la ñu gis assemblée nationale. une assemblée qui ne représente plus le peuple nag à mon avis la meilleure solution c'est mooy tas assemblée boobu. indi fa nag un nouveau type de député comme ni ñu doon waxee un nouveau type de sénégalais un nouveau type de de député mais nouveau type de député boobu xeex lay doon xam nga xeex du question activisme mhm. man journaliste war naa mën a pour sama askan mhm. pour askan wi fi ne mën leen le meilleur profil pour un bon député. mais koo xamee ni day tegg mbirum politique. mais ça doit être même quelqu'un qui est même apolitique à la parce que day ñëw pour xeexal askanam. xeexal goxam. mais li ñu bëgg a def ni assemblée nationale moi pour moi c'est un. c'est un gros problème je veux dire l'assemblée aujourd'hui nii configuration bi. pour moi c'est un gros problème. Euh, sëñ Ablaye euh, yaakaar naa Birame yoon na ci léegi.